Amboto pataw tabe Pulasin di mare Kapen ngogay Anam marjan Laylay asalaamualeykum wa rahmatullahi ñu ngi leen di ziar lay Mamadou Mokhtar ci mbébétub gën a fësal tariqu sunu sang ba Seydina Limaamu Laay al Mahdi salallaahu alayhi wa salaam ak lépp lu ngànk kuréelu axlu laahi ñu di kaat di leen andil jumtukaay bu xarale bi di Laayeen podcast. waaye jullit yéen ñi gëm Baay Laay podcast mooy fexe laayente biir ñeel tere yàlla bi di alxuraanu alkarim ax sunnax yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam tàmbale ko ci xutba yi ba ci ibaadaat yi jëmukaayu Laayeen podcast bi mooy fexe gimmi gindi képp ku doon gëstu ci mbirum laayeen doore ko ci xalif yi ba ci àndandoo sang ba sallallahu alayhi wa salaam. yemul foofu jagleel nañu leen pàkk bu am solo taalifu mag ñi rax ci dolli ay sikar yu mucc ayib am nañu yaakaar ne sunu podcast bi jina doon ak jug ci ñi bëgg jóg seen ngëm ak rafetal seen jikko. yal na yàlla jubal yàlla na yàlla jàmmal yàlla na yàlla muccal jërë ngeen jëf lay madina lay nga xel teem teggin di toogee ñi kay tibee